loolu ci Kaolack Info comme ni ngeen ko gisee nii sur les images li mooy accident bi nga xamante ne nii accident mortel ah, bu am ci fi nga xamante ne nii moo di Kaffrine mu mel ne benn bus bi nga xamante ni moom moo accidenté moo nekk nii gis ngeen ni mu mokkee gis ngeen les images la mu nekk image yu doy waar yoo xamante ne nii moom moo fi am lii mooy bus euh, euh, bu njëkk bi gis ngeen fa moo ko ah, gis ngeen bagage yi nii voilà ma bàyyi ngeen euh, dund li nga xamante ne moo di méttiwaayu accident bi nga xamante ne comme ni ngeen ko gisee nii rek mu nekk accident bu méttee métti boo xamante nii vraiment euh, jéggi na dayoo tool yi sax njiitu réew mi ñu ngi ko fiy xaarandi fii ci diwaanu Kaffrine gis ngeen taskatu xabaar yaa ngi nii ñu taxaw sapeur ak ñëpp a ngi fi jamono ji nag ñu ñuy xamal nañu sax am na ñoo xamante ni fi nga xamante ni moom moo di ci hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass am ñoo xam ne tamit ñu ngi ci hôpital régional bu Kaffrine mais loo ci mënti jàpp daal mooy accident bu méttee métti la ni mu taree accident bu méttee méttee méttee ndax man bi ñuy ñëw ñu ngi fekk benn biis bi mu ngi ralenti booba fayagul booba ñu néew ñoo fi nekk sàppar ñëwagul boobu bi bis bi def accident boobu mu ngi ralenti bu ñu waaw ñoom ñaar bi nga xam ne moo ju mel ni moo jógee woon Tamba euh, Dakar mm-hmm. boobu mu ngi ralenti waaye nag euh, mention spéciale waa Sikilo Mohamed mm-hmm. waa Sikilo Euh, jàmbaar dëgg kenn ku nekk ba nga déggee tell ji waxoo ko sa moroom mhm. ñëpp dañoo daw ñëw ci bërëb bi. di di di dimbali nit ñi di génn di dimbali nit ñi di génn ba ni sàppor ñëw euh, mbir mu ko mettee daal met mhm. man de du ma mag waaye maa ngi koy door a gis. waaw metti na lool ndax ñi ci nekk man jàngat naa ne ñëpp woy daan doole lañ. Mhm. ndax boo xoolee seeni bagage ay góor ak jigéen takkaayu. di liggéey ngir jaamu yàlla li liggéey ngir seen njaboot lii dab leen. daawul ay xale jigéen ah daw na yaram sax gis naa ci benn xale boo xam ne xale bu ndaw boo xam ne nii xam naa dafa fettax génn ci biti. Hmm. ba koy jël la yaayam nañu sama doom la indil leen ma ko ma gis ko balaa may faatu. Hmm. Mohamed. Hmm. wallaahi laasim indil leen ma ko ma xool ko balaa may faatu. Oh. sees yaa ngi ko naj boo xoolee oto bu ci nekk. ci digg bi ba ci bopp bi nit ñaa ngi toog seen sees ñii faatu nañ ñee ngi yëngu te mënuñoo génn. Mm. lu ko dawee yaram Mohamed. Mm. yàlla buñ ko gisati. Ah, amiin waaw métti na lool. waaw maa ngi ñaan président nag nu leen mën a jàppalee na ko def. Mm. ndax ñi wëy daan doole képp lañ. ay góor ak jigéen. métti na Mohamed benn bi benn bi ni ñu waxee Tamba la jógee woon ci gàttal rek benn bi dakaar la jóge woon waaw xëy na dana am yeneen détails yoo xam ne nag ñi ci gën a sës ñoo koy kii waaye Mohamed daal lii lu ko gën a métti moom kéemaan la yàlla buñ ko gisati amiin na yàlla jégal ñu kon mbokk yi dégg ngeen ko euh, kooku euh, kenn la ci ki nga xam ne muy jëwrin Njaay dëkk Sikilo euh, ci fi nga xam ne fi la accident bi amee